naa ni mooy àllarba alors il fait déjà vingt une heures passées wala vingt deux heures alors bu ngeen gisee fii nag kon xam ngeen ni am na luy waaj a xew liy waaj a xew mooy kii waral déplacement TMS bi fii muy soxna Aminata bi nga xam ni moom moo ñëwoon ca Ndakaaru te sëriñ bi faj ko moom tey macha allah tey lay dem sëy kër borom këram bu ñu xëyee nag ci lañ koy ngénte macha allah Abdou Aziz Diagne euh, ñu bàyyi la kàddu gi rek. waaw Moustapha comme ni nga ko waxee rek euh, tey bés bu mag la te xam naa ne moom euh, bés bi bésu alaaji mu lay Sow la ndax la mu def ci xale bi tey ba yàlla may ko bés bu mel nii tey gannaaw bañ gërëmee yàlla dañ koy sante sëriñ bi donc xam naa ne moom sans plus rek dañ dem ci biir kër gi jéem a xool xale bi nan lañ ko waajalee ak nan lañ ko préparé vraiment pour ñu ànd ak moom ah. mu dem donc mu nekk ay moment yoo xam ni ay moment yu am solo yu am importance la ci wàllum sëy parce que xam nga sëy ay oh, valeur oh, euh, yoo xam ni yu am importance la mag yi buñ la daan yëpp dañ la daan wax ay kàddu yi nga la ñuy wax ne jigéen dëkkul kër ndeyam ak kër baayam kër jëkkëram la dëkk dëgg la kër jëkkër daf naa moom mooy kër alors donc ñu fas yéene nan la ñuy waajalee seet bi nan la ñuy waajalee seet bi. xam naa seetu tukulóor nag moom li ñu koy waajalee war naa neex na. ak gisoo ambiance bi ci mbedd bi xanaa. waaw ambiance bi ci mbedd bi. maanaam gisoo ambiance bi ci mbedd bi. ñu ngi tàllal taay bi. kon ñu ngi dugg ci biir. salaamaaleykum. Bamba Dar. allo Seydou. ça va bien. yéen a ngi préparé. ah, ah, ah jëlal ma kii yow ana seet bi. ana seet bi. mu ngi fa mu ngi fi. Abdou Aziz. Eh, on jaaraama. nomba daada seli. mawdum. buñ paree no sukaabe. waaw Aziz. kii mooy soxna Aminata Diop. waaw seet bàyyi ni mhm. moom la ñuy waajal nag pour yóbbu ko mu dem muur ko mu dem sëy ji. Mhm. Euh, kër borom këram. mu nekk nag jour boo xam ni c'est historique la parce que xam nga xale bu jigéen buñ ko waree muur pour mu dem sëy ji dañ koy yeb yeb bi mooy bu demee nan la war a sëyee foofu euh, xam nga bu fekkee ni nag euh, dañ koy wax mu topp ci ay tànk waajuram rawatina yaayam xam nga suñu yaay yi. Euh, boo gisee maa ay référence lañ ci société bi euh, nekk ak suñu papa yi euh, sëy lu mot juróom fukki at kon defe naa ne xale bu jigéen aussi buy sëy dafa sangu daal bu jëkk mhm. solo boo yëreem mhm. kii yaayam la kii kii dal ma ko jur kii dal ma sama goro la mhm. waaw encore léegi moom est-ce que mun na wax kii boobu tantam la tantam la waaw mag yaayam wala rak yaayam. non moom ak yaayam ay ci jal wujj ah, waaw ah, ay wujj waaw. léegi nag boo soo gisee mu nekk fii mhm. mbokk yi yëpp dañuy ñëw. tant yi bajjan yi yëpp ñëw mu rëb. calmini ceerno mullahi min juurimu ɗum min jettimo min manimo min mbin min jettimo min manimo ko mawɗum alhamdulillahi rabbil alamin allah oh, il faut hmm. ko mawɗum alhamdulillahi rabbil alamin allah ko allah allah yettama kadi mbimi allah yettama kadi woni ɗo ko amnata molel o lootama hawo laaɓi o murnima waɗi gaɓɗi makko omo jofoya suudu makko so ji noon waɗaka ha ɓuuri ɗo ni kono wonda e sunare so wona no sunare nde ɓuranno ɗo henne ɗum ɗo ko baag allah tan ene waɗe alay e saago ma waɗe haade fayi ko suudu mum min mbaɗi min duwima noon yo allah fewnu yo allah hawdin jikkuji yataw ko allah ardi nde woɗen hen kodde bani moori noon wiyete tan ko jarama min ɗaldi ɗum ko allah e nelaɗo muɗum lim aftu waaw nee moom daal moom daal lu mu wax la ah. waaw. waaw wax ba pare waxal ba pare. waaw nee na mu li kii wax ba pare. waaw nee na moom daal dañuy boo kii rek bëgg rek. waaw nee na ñoom daal boobu dañuy bëgg dañuy sant ñëpp. bon xam nga ñun boo suñu suñu kii daal ceet daal suñ ceet avant day day day am lu ne day am eh, ay sabara day am eh, ay xumbay bon soo leen dal bu gisee amul dara dafa calme parce que dañu am dal dëj. Ah, loolu moo tax waaw loolu la wax nga boo ci pulaar neen encore kii boobu doomam la boo dafa baax dafa yor encore waaw loolu boo ci wax ci boo mbiyeteemi ko aissat si loolu mën a wax ci sa doom min jibini amnata amnata ko min jibini ɗum mi weltanima abou diob mi weltanima ceerno mullaye sow eyyi eh, jokkodiral ngal fof ko abjow waɗi ɗum o jooɗima ɗo ene lewru walla lebbi ɗiɗi o haalani no naati galle ceerno mullayi so tan o haali mboɗo weltini allah mboɗo weltini ceerno mullayi mboɗo weltini allah tuggude e nden abou diob nanguimo ko ha tiiɗi ƴefti hay wi fi waɗe galle muɗum wi ko yo nanggu o heeɗo téléji ceerno mullayi ñande fof ala ko yeɓata sowona ceerno mullayi mi weltima noon hande mi wawa haalde saa yi kadi wayi dani en ko gorgol makko cankiɗo gorgol makko ne sankiɗo worɓe amen jiiɗi yumma e baaba kono so wonano ɗum min mbaɗanan on terenga kadi yangge nge kadi waɗe terenga so yi wayi ni tan ko mette min gondi ɗe kono so wonano ɗum wona dani en mi weltima noon haala kulle haalen kadi abou diob yo allah ko waɗani dani yo allah newnanmo kayitaji yo allah newnanmo moƴƴere mi salmini on mi sarmini ceerno mullayi on jaaraama mi wiima kadi soobaalo oɗoy wax ngiri ak Serigne Dal Moulay Sow nee daal dafa sant dal Serigne Dal Moulay Sow bu baax sant encore abu Diop daal bu baax loolu lool la boo la wax sank nee boo soo leen soo leen boo dal bu gisee yii yëpp ngir yàlla ak Abou Diop ak Serigne Dal mu Sow soow Moulay Sow soo gisee daal am na mun a am doom mun a encore sëy ngir ak Serigne bi waaw mu ngi daal ñu dal kontaan loolu loolu la leen wax sant à suivre. ci également gis nga bagage bi ñu koy yëbee matelas masa jege naay ainsi de suite et cetera ñu ne yàgg na ci jamono waaw lii moom ay bassin ñoo fi nekk. waaw xam nga. Ah, xam nga ak yére. Mhm. soo leen gisee daal affaire yi daal calme daal amul dar mhm. dañuy am daal dëj moo loo moo tax ah, moom lii mooy. tukulóor. Ah, day sol daal ay ay yére daal daal bu rafet.

Umbebor, Yoya, Fila. Si suñu aadama si waaw ah soo indee boo ci jabar wala muy dugg ci biir defar boo tëj boo ci tànk sa yaay dafay tëdd fii ci tànk waaw teg waaw loolu am na solo s'il vous plaît waaw kii moo yaay ma kii waaw lii mooy si suñu aada sëñ yi balaa mu dugg dafa war war tëdd ba pare dafay tëdd ci tànkam waaw ah d'accord kii moo jur ma kii ndeysaan encore kii mhm. abu tant kii la am la waaw dal papa kii waaw ak papa am am nat waaw ñaari papa yi ñoo bokk benn bay uh-huh. fii moom ay mbokk lu kese ñoo ñoo fi nekk mhm. waay encore am na waaw dafa jógee kër waaw ñu war boo si këram dëgg la ay doom bay lañ dëgg la dëgg la seen ñaar papa yi ñoo bokk ndee ak bay dëgg la xamar sori mhm. xamar sori mhm. ak samba sori waaw ah mhm. ak ngaari sori xamar sori ak samba sori ñoo bokk ndee ak bay ah waaw xamar sori samba sori ñoo bokk ndee ak bay xamar sori moo jur siir sira samba sori moo jur demba jóob dëgg la Sir Siré moo jur ma kii. Mhm. Demba Diop moo jur am naa. dëgg la kii papam ak sama yaay ñoo ñoo bokk ndey ak bay. est-ce que ak sama yaay ñoo bokk ndey ak bay. Mhm. soo gisee encore lii yëpp ay bokk encore kii encore boo sama yaay la. waaw kii encore papam la. Mhm. ak sa papa sama yaay ñoo bokk benn bay. ñëpp ay mbokk lañ. dëgg la waaw. dëgg la. mais ana ana ku góor ki gis naa encore. ay dugub gis dugub waaw lii lii lan la di dugub waaw dugub waaw. waaw lii lii moom mooy dugub. lii yëpp lii yëpp gaa boo ci. aada bi la bokk waaw dëgg la gis dëgg la gis dugub gis dugub yi. waaw lii moom selon pare kenn du ko lekk dañuy dañuy bale jox ay ay ay fas wala jox ah dugub bi kenn du ko après dañ koy bale. jox jox ko jur gi ñu lekk ko. waaw kenn kenn du ko lekk. ah d'accord. lii mooy aada tukulóor. waaw nii yëpp cosaan la cosaan moo fi nekk hmm? ay cosaan la moom ay cosaan la ndeysaan c'est voilà mbokku téléspectateurs yi euh, euh, jibi kaay taxawee nii waaw kon nag ni ko waxee woon euh, jot nañ gis maanaam Macky Macky nag mën nañ ko waaye monsieur le président moom la ñu doon indi seetam waaw monsieur le président foo nekkoon da génn tuuti rek quoi. ah. waaw lan. ah rek pour programme nga. Mhm. nga daw pour. c' mhm. bi pour day gis. waaw oh, def por la il faut nga daw tuuti rek quoi. dëgg la xam nañ ne tey da nga kontaan ndax indi nañ soxna si mais loo ñu mën a wax ci sa soxna si Aminata. ah tey man kontaan naa quoi. Mhm. kontaan naa trop. billaahi ah kontaan naa. Mhm. kati ziar naa Thierno Moulay Sow. waaw. moom sama sëriñ sama jabar laa quoi. dëgg la yaa ngi koy gërëm bu baax. waaw vraiment vraiment sama jabar sonn naa pour feebar bi. Mhm, mhm, billaay toog naa une semaine. mënugul wax. mënatul wax waaw. mais dem na Dakar. Thierno Moulay Sow lay gis rek. day wax. dëgg la mais man kontaan naa. trop. ñun yëpp. jërëjëf. jërëjëf ziar naa kontaan naa. nag. Mhm. waaw incha allah soobee suba ngénte bi waaw ngénte bi ngénte bi waaw kon daal kontaan nga ci mu lay Sow kontaan nga ci abu Diop sa goro di sa lépp ah sa nijaay la sa nijaay la sa goro d'accord nijaay bu baax ah Moustapha kon nag waaw war hmm? mum sama tante ah ndeysaan ndeysaan kon nag kon nag yóbbante bi Moustapha mu ngi noonu kon nag dégg ngeen ko li mu wax ci alaaji Thierno Moulé Sow kon nag dañuy tàccu Thierno Mouleye Sow vraiment moom la ñuy mujjee tëj loolu tàccu leen ko. haali wolof mi haala pulaar voilà acca ci pulaar acca yóbbante pulaar acca on calminaama waaw mon fof salminaama innde mum e yettore mum mhm. affaire jarnae muɓe ceerno mullay so on mhm. mbiyama bisimilla moon mhm. min calmini kadi kawmabo joobel konko saabi ha garɗon ɗo Mm-hmm. min jetti allah min jetti nelaɗo mum min mbi kadi alhamdulillahi rabbil alamin mm-hmm. ceerno mullahi so min golle makko e balle makko mm-hmm. vraiment ko waɗi ko minen kam min mbawa yewdemo par ce que sababu woni sababu debbam tampino ɗo joɗinomo ɗo une semaine wawi haalde mais no allah waɗi o itta ɗo nde o yindira ceerno mullahi so tan o watti haalde ɗum kay yimɓe foni ceedi kadi ɗo o tampi ala to nawa kono ceerno mullayi sow noɓe jindiri face à face mhm. o watti ko haalde mhm. ɗum yimɓe fof ji jaddi ceerno mhm. mullayi sow ko waɗnimo ko wona neɗɗo fof wawi guino ari ɗo ha joni min jiyani hoore nde muusa saaha goɗɗum ɗum noon min beltima no fewi vraiment min beltima min beltima yo allah junno balɗe makko junno mm. battane makko mm, mm, onon kadi wonɓe ɗo ɓe vraiment mi weltanima on mm-hmm. on jarama on mbaɗi teddugal on gummima dahar mm-hmm. on gaari ha ɗo mais foof kadi ma moƴƴo mm-hmm. inchallah allah e wonde moƴƴo calminama jërëjëf mbokk téléspectateur euh, borom këru aminata mi aminata diop doomu abou diop donc ñu ngi kontaan nag di jox rendez-vous suba inchallah jërëjëf monsieur le président waaw ak nga nuyu première dame nga nuyu ñu